li ñuy wax mooy pare nañ ñun waa Pastef Touba jigéeni Pastef Touba pare nañ takku taxaw temm ngir jàppale Ousmane Sonko ci kombaa bii parce que lii ñu koy jiiñ du lenn loo xam ne lii am na ci laalewu ci benn yoon ñun nag takku nañ taxaw danañ mel ni jigéen di talaatay ndeer jàkkaarloog Macky Sall parce que moomul réew mi dañ koo fal te dafa war a fàttaliku ni ba muy falu moom dañ koo meraloon xeexal ko ba mu toog jël réew mi kon la nga xam ni moom moom lañ ko jëfoon ba ñun waa Touba ñëpp mer ko àndandoog Macky Sall ba yóbbu ko pale bu fàttali ko woon démb kon du def nii Ousmane Sonko moo tax nag ñun takku nañ taxaw ñun jigéen ñi Touba fas yéene ànd ci combat bi danañ ko ñafe ba mu jeex. moom balaa moo jaar ci ko usmaan Sonko day jaar ci suñuy koor ba pare doog a jàll ci Sonko mais duñ ko bàyyi mu def li mu bëgg parce que ñun li ñu gis ci Sonko gisuñu ko ci moom ndax moom dafa tas yaakaaru doomu aadama yi dañ ko yaakaaroon daan ko cotiseel nag ni ñuy cotiselee Ousmane Sonko dañ ko ko daan jëfal tey jii bi loolu yëpp jàllee mu fàtte ko teg ko ci ginnaaw comme ñun nag suñu yaakaar tas na la ñu yaakaaroon gisuñu ko. ñu wëlbati ko ànd ak Ousmane Sonko mi nga xam ne am nañ ci moom yaakaar projet yi mu tëral bu dul ñun di suñu njaboot wala muy xale yi nga xam ni ñoom ñoo dese tey jii dinañ ci gis seen bopp ëllëg mais loolu dañ ko yaakaaroon ci Macky Sall te gisuñu ko kon pare nañ combat bi lum ñu lum ñu jaral rek lum leen jaral ñoom dinañu ko jaral ba dawuñu ci dara saala yaay ndeer duñ ko ci daw ñun bu aajoo dem dinañ dem ba aajoo déplacé wu dinañ déplacé wu dem soutenir suñu leader ndax nit ki lu ko jógloo lu ne loo ko te ñun dañoo gëm ci li ñu nekk dañ cee takku taxaw kafuñu réewuñu dañuy jàppale suñu leader ba luñ ci am rek jël. dafa yàq réputation wu jigéen moom sax réputation la yàq moom Adji Sarr kooku daf ñoo rusloo ñun ñun jigéen ñi benn jigéen bëggut a mel ni Adji Sarr benn jigéen rek soxlawul ñu nawloowuñ ko te nag jéggaluñ ko ci lii mu def te dinañ ko topp jusqu'au bout du yombee noonu de aji moom affaire am fayagul jeexagul ci zaahir di ci baatin nag dinañ ko topp ba mu jeex du yomb benn yoon bu boobaa lu ci war rek ñun bu boobaa dinañ ci taxaw comme foofu yeggaguñ fa heure buñ ci yeggee lu ci jaar lu ci war rek dinañ ci taxaw dox ko wax ko ñun daal li ma la wax rek ñu ngi ci ginnaaw Sonko tey ba ëllëg dawuñ ci dara. ñun malgré li xew lépp ak lu ñu mën a jiiñ Ousmane Sonko ak lu ñu ko mën a taqal ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam suba ñu ngi ci ginnaawam ginnaaw suba ndax dañu am ngëm-ngëm te Ousmane Sonko gëm nañ ko yaakaar nañ ko wóolu nañ ko te lii nag dara bettuñu si woon ndax leer na Macky Sall ne opposant bi gën a mag tey jii mën nañu wax sax benn opposant bi am tey ji Sonko la. te boo xoolee régime Macky Sall bi mu commencé ba tey day éliminer ay ennemis kon Sonko tamit ennemi la daf koy éliminer su li jàllee tamit beneen day ñëw incha allah beneen dina ñëw ndaxte man dama di man a chaque fois dama koy wax yàlla bu mu am mais Sonko man dama jàpp ni su may tuul dina dem kaso ndax xam nga lan moo tax du question moom moo def de deful waxul ndax Sonko bu doon def Sonko aujourd'hui il est mature na xale doonoon na jeune te en général les fautes les plus graves sont commises à l'adolescence soo nekkee ndaw en général avant ngay am 20 ans 18 ans tu n'es pas majeur faute yi gën a garaaw sa àdduna ci nga koy commettre te Sonko ba mu sampee ndëndam ba tey ñi ngi ko teg bët di lu xati ay mbootam di xool yu daam déewam yu daawam di ko bëgg a boobu ba léegi combien d'années Ousmane Sonko a été inspecteur des des impôts et domaines ah et pourtant jusque là personne ne peut montrer donc un dossier dans lequel Ousmane Sonko a fauté ñaata at la Ousmane Sonko doon inspecteur donc des impôts et domaines te foofu pourtant wàllu xaalis la de mais bi mu jeexalee bañ dàq ko muy def euh, déclaration de patrimoine am Sonko wax na leen lu leer malgré millions yi mu doon gérer yëpp di gere entreprise yi gën a mag ci Sénégal benn kër la am benn oto la am ci compte am cent de 500000 ko ci il a été loyal ku juba ngi noonu te doon gérer ay xaalis te fi Sénégal gis nañ inspecteur impôts et domaines yi macha allah. ay kër yu bëri la ñu am fu ñu am fa terrain am ay oto yu bëri man je pense que Sonko bu ñu rëccee oh un Sénégal meilleur rëccuñu yàlla bu mu ñu rëcc waaw.